না الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون يشركون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصنا عليك من قبل وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجالة ثم تابوا من بعد ذلك من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صاكرا لأنعم اتبعه وأدعو إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تخفي ضيق مما ينكرون إن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 نات بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم وما سئل موسى من قبل ومن يتبدل كفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من مهد إيمانكم كفارا حسدا من هند أنفسهم من مهد ما تبين لهم جاءهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا ليدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصاري تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلي من أسمع وجه الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وخالت اليهود ليست نصاري على سيء وخالت نصاري ليست يهود على سيء وهم يتلون الكتاب كذلك خال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أسلم ممن منع مساجد الله أيشكر في اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا هسوا ولهم في الآخرة عصاهم المصيب ولله المشرق والمغرب بينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض إسا خدي أمرا إنما يقول له كن فيكون وحال الذين لا يهمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك حال الذين من قبلهم مثل قولهم تسابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوحنون إنا أرسلناك بالحق بصيرا ونسيرا ولا تسأل عن أصحاب جهيم ولن تري عنك اليهود ولا نساري حتى تتبع ملتهم ولن هدى الله هو الهدى ودي ولن اتبع أهواءهم بعد الذي كم من ما لك من الله من ولي ولا نسي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلواته أولئك يؤمن به وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله في سبيل الله لا يتون عند الله والله لا يهدي القوم الصالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لا يتون عند الله والله لا يهدي القوم القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لا يتون عند الله والله لا يهدي القوم الصالحين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبصرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أولا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وأولياءكم إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الصالحون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعسيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجار في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين قوم والفاسقين الفاسقين لقد نزركم الله في موادنا كثيرة ويوم عنين إذ كسرتكم فلم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 يقرب المدينة حرامي بعد عام هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم خاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجسد عن يد وهم ساخرون وقالت اليهود سير بن الله وقالت النصارى مسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الساحقون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما حذر وعدا اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لواه عليم وما كان الله ليذل قوما بعد صادهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات ولا يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في القصة من بعد ما كاد تسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحيم وعلى صراط الذين قدفوا حتى إذا داقت عليم الأرض بما أحبت وضاقت عليهم أنفسهم صنوا أن مرجع من الله إلا إيه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله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 وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لطن قاعد من النساء إن اتقيتن عن أنا بالقلب مع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلة لولا وأقم الصلاة وآتنا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليستمع عنكم رجس أهل البيت ويطهركم كثيرا واسكن قائد له في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا كبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والساكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نساء قد الله ورسوله أن تكون لهم خيرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويتقول الذي أنعمت له عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتوفي في نفسك من له وديه وتحسنات والله قام تقسى فلما قد صيد منها وترى سوجناك لكي لا يكون على القوم حرج في أزواج أريك يا أيها إذا قدمتن وترى وكان أمر الله مفعولا ما كان أحد النبي ابن حرج فيما فرد له سنة الله في الذين قالوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويحصنوا ولا يحصن أحد إلا الله وكفى بالله عتيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكبروا بكرة واتلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi nuyu kenn ku nek ci turam ak santam di len balu ak bu bax te di len bal, te di len siare bu bax bax di nuyu seigne Modou wagnan di nuyu waajuram seigne Saybu mi nga xamne mo fi tew legui di jallale kàddu yu am solo oh, kon dañuy dole tambale sunu tiant ci mom waye nak di sante yalla bu bax di julli ci sayidina Muhammad di sant Serigne Touba waaye di sant Cheikh Sow bu Mbàkke sunu sang bu baax ba nga xam ne tey lii lépp mooma ak bëggam rek mooy dox ba nëga ni bëggam lépp nag ku ne xam ne ci alxuraan la ak jaamu yàlla ak liggéey ak maandu ak ragal yàlla ak jëf lu baax loolu moo doon jëfi Serigne Sow bu moo doon ak bëggam te ci dëkkam bii di Mariana la ko gënoon a yéene kon tey li ma ko wax démb rek ne ko yow de bu sëñ bi ñëwaatoon doo am kersa ndax li mu bëggoon ci dëkkam bi yow yaa ngi ci ba tey ak kep ko xamne yaangi bok ak mom yor dara fi ci Madiyana di liggey liggey bu melni muy jëfi soy bu du ak bëggam mu bayyi won ko fi kon yow sa jaan wàcc na li nga wara def yaangi ci li mu fi bawon yaang koy dundal li mu bëggoon nit yaang ko koy defal kon yalla na yalla fay waye nak di sant yi batay ñi nga xamne ñoo la jàppale ci dara ji ndax yow nga yor ñaari waar yo xamne mëno ci bayyi bàyyi yow mëno baña a mëno baña dem daayira ndax lool ci lañ la yar ci lañ la tagat ci nga nek ba li nga am tay nga am ko ci kon do meuna delu ginaaw ci yar yooyu len kon dañu santat ba ñi nga xane bo boo buñ la soxla ci daayira bi da ngay ñew and ak ñun ci liggey Serigne Touba boobu suñu noppé nga desuwaat ci daara ji kon am na ñoo fi bàyyi ño xamne ku melni serigne Cheikh gay ak ñim ko andal man it maa ngi leen di sant bu baax di leen gëreem ndax yombalal nañ ma Modou ba suma ko soxla mën jot ci mom té man mënuma koo ñak ndax limay liggey Serigne Touba daf ma ci fété fo xamne ne mënuma ko wax lepp ci loxom la nek ma ngi koy sant bu baax di ko diko di ko ñaanal ci touru daayira fo Fawzeyni ak federation Touba Porokhane khidmatul khadim ak kep ko xam ko bok ci liggey bi nga sama cant ma ngi koy bolé ak gog wa daayira bëpp di ko jébal di la sant di la dila di la ñaanal serigne saibu fayla yalla may la fannu gudd ànd ak wërta musal la ci mdok musal la ci saytane defal la lepp lo gëna bëgg sa aduna rek sun borom defal la di sant ñi nga xane ñi ngi joxe seeni doom ci daara ji ñi fi jàngé tamu nekk lu leen ñor la yek naa ne ñor la leen lool ndax japp nañ ci liggey bi yombal nañ ko modul te amuñu benn fakatal bo xam buñ ko ci def la ndax su ci amoon it ko yek te suma ko yegge dama koy and ak mom rek ndax bañu samp dara ji noko andon ma mom kon lu ko ci way defone dama koy and ak mom waye nak sant na leen ci gërëm na leen ci yombal gi ngeen ko yombalal liggey bi ak ni ngeen ci jappé ak ni ngeen dimbalé xalé yi ci yombalil ñu mëna a jàng si lii rek nak moy dëgg alcorane rek moy dëgg ko gis xalé bu ndaw bi fi doon tari léegi di sëñ Fallou ba nga gis ku jooy jooy yu metti yoo xam ne dafa xam ne alxuraan rek daf ko pikir ci xolam ba mënatut a toog mu door a jooy te defe naa ñu bari itam jooy yooxuwuñ ba ñëpp di ko dégg waaye seen xol tooy na lool kon loolu alxuraan rek moo ko man wala wax ju jëm ci sëriñ Tuubaa Seex Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul kon loolu sëñ Modou yàlla na la ci yàlla saxal te musal la ci lépp loo xam ne day waral ak yàq te téel la daara ji ba képp koo xam ne dugg nga fi bala ngaa génn yàlla na nga sëb dënn fees del te bu feesee yàlla na ko murloo di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp ci tàmbale ci koñ bi ba daayira yi fi dajeek taalibe sëñ Tuubaa yeeg ñi bëgg lu baax ñëpp da teew ci liggéey bi yàlla na sëñ Tuubaa sëriñ Soy bu faj seen aajo yàlla fi yàlla yàggal may la xayro yaa man yaji uni dawa man يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيئني الدوام خيره سلي وسلم سرمدا يا رحمن على الذي به تتيب الأسمان سيدنا محمد والآل وليستجيب بجاهه سؤالي أنت الرعيم الملك الخدوس لك علي شكر وتقديس anta salaamu muminul muhayminu adoo biha wa innani uhayminu anta laziizu abuwal jabbaaru laka alayya alhamdu wal kubaaru yaa mutakabbiran loo takabburu خالق يا بارئ يا مصور خفار يا خخار يا si léegi ni nga gunge ngeen dem ba ca mbooloo ma xamal ne muudu bu ko sama jon mayoon may ñëwal sama bopp waaye foo nekk fu ne doy na ma ngeen santal ma ko ci kanamu sëriñ soxna bu wañaan mii di la xamal ne sëñ bi nee na ma ngi koy ñaanal di ko gërëm di ñaan ci barkab sëñ soxna bu yàlla yàlla guddal fanam ndax nee na ma ngi rafetal lool ma ngi da xamit li nga xam ne moom la Madiyaana laaj muy lan ay jub ak i teggin mag mu ne warmal na la nee na looloo ko njëkk neex ci muudu nee na nag tey bu ko mënoon moom da ngeen xam ne tey jëmmam moo fi ñëw toog fii ndax muudu jar na lu waaye nag nee na bés du yam ci wenn moo tax tey jii mu ñëw yónnee ñu nee ñu daal yitteem jépp mooy bàyyi na la xel ca mag lay ñaane ci barkab suñu sony bu nga defaat ko heure bi déen jërëjëf asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu sant yàlla jullit ci yonenam bi tedd bi noo ngi sant Seexul Xadim bu baax di ñaan suñu bopp mu fayal nu ko noo ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki dëkkandoo yi ak xarit yi ak soppe yi noo ngi leen di siyaare bu baax di ñaan suñu boom defal nu tawféex ci jataay bi mboolem kilifa gu fi teew noo ngi lay siyaare di la jox sa wàccuwaay ba gën a kawe di ñaan bis bii lépp loo xam ne jàng nañ ko fi ci alxuraan ak i xasida ñu ngi ñaan suñu boom mu defal ko ay xéewal mu sax dàkk àddina ak alaxira dañuy jottali rek ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko ci kilifa sëriñ Modou Wañaan muy soxna Aminatu Sylla moom Cheikh Souhaïbou ñu di ko ñaanal baax suñu moom defal ko tawféex di sàkku tamit bokk yi nu may nu dégloo ñu ma leen jottali li nga xam ne ndigal la lu bàyyee ko ci soxna si muy jëm ci képp koo xam ne suñu moom dogal na nga teew fii jataay bi di fàttali tamit ne soxna si dafa wax ne dafa am ab liggéey boo xam ne suñu moom daa dogal mu séq ko ak daayira Matlaboul Fawzeyni ñu jël liggéey bo bépp teg ko ci loxom muy ay garab yo xamanté sumam dafa dogal ñukoy dembeut ta garab yoy jëm ci dëkkub suñ touba bi loolu la cay firnde moy fan ye ci ginaaw suñu mom da dogalon ñi nga xam ñom ñoo ngank daayira Matlaboul Fawzeyni ta sëriñ Omar senebalo jitu ko ñu tok di waxtaan ci garab yoy ñu ron dembeutal diko dembeut ta diko defalo soxnaay soxna mi ñu tok di ci waxtaan ba ñu bëgg ci lu mat ñaar fukk junni garab ak juroom ñet ñaar fukk junni ak juroom ñetti garab yo xamne ne bëgg nañ ko suxat ci dekk suñu tuba bi fekk suñu bam da dogal ne Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xamne mom la suñu bam dogal mu jité yoonu mourid wépp mu tok ak suñu Cheikh choro ñuy waxtaan ci ay garab yuñ bëgg def ko ci dekk suñu tuba bi bañ ca toogee di ca waxtaan sëriñ bi ne ko man de ay garab yoo xam ne bëgg naa koo def ci dëkku suñ tubaab yi laa xamut fan laa koy jëlee moo ko suñ Cheikh Thioro ñu toog di ca waxtaan mu ne ko garab yooyu de heure boo ko bëggee de ci kàttan yàlla di nga ko am incha allah far fa muy waxee téléphone sëriñ Cheikh Thioro sonné mu wuyu muy suñ muy mu nekk sëriñ Omar Sénébaloo mi nga xam ne moom moo jiite Matlaboul Fawzayni mu ne ko ñun de suñu moom naa dogaloon. ñoo am ay garab yoo xam ne dañ ko doon jëmbatal sëriñ bi ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi garab na nag commencé nañ liggéey bi ñu jël ko te ko ci loxoom soxna Amady Sine moom sax soñ bu bi mu ko waxee loolu mu ne ko loolu de kéemtaane na ndax fii ma toog nii maa ngi toog ak Cheikh Sidi Moukhtar te ñu ngi doon wax di waxtaan nan la ñuy def ba ay garab yu ñu def ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi loolu nag mu doon tawféex goo xam ne dafa feeñ ci liggéey boobu kon nag ñoo ngi sàkk képp koo xam suñu moom dogal la nga tey fii soxna si nee na bu subaa ak jàmm liggéey boobu dañ koy eggale ma nga nekk fee ci mën mënlul foo seen di Touba Bofel mi ngi sàkku nag ne képp koo xam ne teew nga fi te liggéey boobu ñor la ndax bañ ko tàmbalee léegi yàgg na waaye dafa des ñu bëgg koo àggale ji suba ak jàmm mu ne nag képp koo xam su moom dogal na teew nga ci jataay bi suba incha allah boo xëyee na nga ñëw fii ci kër su Serigne Saliou Mbacké oto bi nga xam ne moom mooy yóbbu nit ñi ñu jëm foofu ca liggéey ba maa nga fa taxaw di ci sàkku teewaayu jullit ñëpp képp koo xam su moom dogal na nga dëkk ci gox bi maa ngi dégg suñu kàddu soxna si ne mi ngi la ca woo di sakku sa teewaay ci liggéey boobu kon nag képp ko xam ne teew nga fi ñu ngi lay jottali liggéey boobu nga bàyyi ko xel baax a baax leneen la nga xam ne dolleeku na ci te muy ndigal loo xam ne mi ngi koy jottali mboolem koo xam ne su moom dogal na nga bokk ci fédération Touba Porokhane Xidmatul Xadim ci njiital soxna Aminata Sunu nee na mi ngi fàttali ñëpp ah, ñetti fanu baraxlu yi nga xam ne moom la ñu màggal Cheikh Mamadou Moustapha mu di ko defee fii ci njaarim nee na mi ngi koy fàttali ñëpp képp koo xam su moom dogal na nga bok ci fédération bobu nee na mi ngi la ko yëgal nga bay ko xal bax ba mu ci egg jàmm ci carte yàlla képp ko xam su mom dogal na addina dañ ci daan laaj mu jëm ci loola ci liggéey bobu nee na mi ngi koy fatali mbokk yëpp ñu bay ko xal baax a baax leneen la ci dolleku muy juróomi fani koor yi nga xam ñu ngi koy màggalal Cheikh Souhaïbou Mbacké nee na mi ngi koy yëgal ñëpp képp ko xam su mom dogal nga teew fi nee na liggéey boobu nga xam dañ ko séq ak mom nee na mi ngi koy fatali mbokk yëpp ñu japp ci wajal ko baax a baax ak ndogu yi nga xam mom ci fukki fani ak juróom yi ci koor gi da koy def waxtu wu ci nekk di ko liggéey di ko jox njabootu Serigne Touba gi nekk ci dëkk bi rawatina njabootu Cheikh Soy bu nee na liggéey boobu it ngi koy fàttali bokk yëpp ñu waajal ko bàyyi ko xel baax ndax mi ngi suñu kanam laylatul xadar gi nga xam ne tamit doo ko defal soxna soxna may Mbakke te ñu koy defee fii ci soxna kër soxna Mbaali Mbakke moom soxna may nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ñu bàyyi ko xel baax ñu waajal ko buñ ca egg ak jàmm ci kàttan yàlla muy liggéey bu am solo waaw kuréelu ma fàttoo Bichri bi nga xam ne ñu ngi fii ci koñ bi di waajal Kazu Rajab gi te mu nekk samedi bii di ñëw bu dellu si incha laa nee na ñu ngi yégal ñëpp képp koo xam suñu moom dogal na nga dëkk ci gox bi di Madiyana nee na ñu ngi lay fàttali euh, liggéey boobu nga xam ne ñu ngi ci wàccaay wi te ñu nekk ci fan yi ci wàccaay wi di euh, di ko waaj ñu ne nag képp koo xam suma moom dogal na nga dëkk fii ci Madiyana lan ñu la ci ñaan laaj te mu addiyee joo xam ne dafa jëm foofa nee na ngi ko yëgal mbokk yëpp ñu bàyyi ko xel baax ba képp koo xam suñu moom dogal na nga cee war a génn sa liggéey nga joxe ko ñu ngi koy fàttali te ki nga xam ne moom moo jiitu ca bopp ba di bay Serigne Sarr ak Serigne mu Diop nee na ñu yëgal ñëpp ñu waajal ko bàyyi ko xel baax a baax a baax kon daal loolu bokkoon na ci kaddu yi nga xam ne tënkoon ko soxna si joxoon ko ñu ne nañ ko jot li mbokk koo xam ne yaa ngi fii teew fi ci jotaay bi nga booy dem nga yóbbaale kon noo ngi sant suñu Modou loo xam ne bëgg na ko ci ci xéewal ak su tax dàkk àdduna ak laaxira ñu ngi ñaan ko ci defal ko ci kaw njortam ak mboolem sëñ daara yi nga xam ne tew nañ fi gis nañ fi ngeen ko teg jàpp jàpp géeg lépp gis nañ ko ñu ngi leen ñaan su moom fay leen yokku leen def leen ay màggal islam yi nga xam ne suñu borom def leen màggal islam yoo xam ne ëllëg yoomal xam na na ñuy tànn nga xam ne danañ xet li jaam ci nga ñuy bokk loolu ñu ngi leen ko ñaan su moom dafa leen ko yàggal leen fi ndax ku leen sant lañ gërëm nañ leen baax a baax ndax koñ bi madiyaane gi gis nañ fi ngeen ko teg gis nañ ni ngeen ko jàppe ak gone yi li ngeen leen jàngal ci alxuraan lépp gis nañ ko ak xam-xam bi ngeen dugal ci gone yi gis nañ ko ñoo ngi leen ciy sant di leen ci ñaanal su moom defal leen ci fay ko àdduna ak goog goog alaaxira ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di ñaanal Cheikh Sidi El suñu borom guddalaw fanam te wéral ko di nuyu mboolem njabootu suñu son bu gépp ñu ko suñu kilifa waxee buñ ko tuddee soxna maam Mariam Mbacke ibnu Serigne son bu ñu baalee mboolem kilifa yëpp kilifa jotaay gi di soxna mi silli moom Serigne son bu buñ ko nuyoo muy baalee mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi yëpp di nuyu bokk yi nga xam ne si ne moom lañ suñu borom mbooleel. buñ ci tuddee suñu kilifa sëriñ son yi boo ñaan muy baale mboolem mbokk yëpp kon ci ab tënk rek lay doon boo xam ne dañuy sant rek ñun ndax li waroon a taxaw lépp ñu ko war a taxawee taxawe nañ ko kon la ci mooy sant mbooloo mi gërëm leen ñaanal leen cant gi nag ñu ngi ciy jiital Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu sëriñ son yi bu du ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam te wéral ko ba lim yéene yoon wi lépp sunu borom may kàttu nga àggale di jël kàddu gogou nonu nak di ko sant mboolem ñi nga xamne suñu borom dogal nañu wuy si jotaay bi ni te jëm yalla rek tax tay suñu xol dafa sét lool bu yalla dogalé ñu jël kàddu suñu kilifa gu baax gi nga xamne ne njitul daara ji di suñu kilifa di Cheikh Soxna bu wañaan yalla dogal mu tok suñu ginnaw ñëkëti ñëk jël kàddoom kon lolu mbégte lañ tam baax di sàkku itam ñu ñaanal ko sunu borom dëgëral ko te kàttanal ko ba lim yene ci njabot gi yene ko ci daara yi sunu borom agale ko bakki sew xadim loolu nak buñ ko waxe dañ ko waxal ci turu sunu kilifa sëñ son yi mi nga xamne moy sunu kilifa jaar ci sëñ usman wacc ba ci nga xamne ne ne ñoon lañ bokk la geeb yep di beral cant itam ñi nga xamne ñoy ñooy yaay yi donga ndax suñu xolé bis bi manam dañ ci turu Modou wañan waaye mel na ne dongay daara yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara ji ñooy def at mu jot ñuy def am ndaje moo xam ne dañ ciy éviter bokk yi nga xam ne si ne nii seen i ak seeni xarit ànd koo bokk yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir daara ji ba génn te nekk ci gox bi ak ñi nga xam suñu borom dogal nañu génn ci nekk ci leneen di di yaxamtu di yëngutu ñooy dajaloo def at mu jot ànd ak seen mag. ak seeni mbokki dëkkandoo taxawal lu mel nii xam ngeen ne bu doon suñ jëmu ji képp baas bu mel nii mënuñu ko taxaw suñ bopp ñun suñ jëm bopp mënuñu ko ndax fañ koy jëlee mënuñu ko waaye nag li ñaan mbooloo bu ñu àndee doon benn ànd ak seeni yaay ak seeni maam ak seeni bàjj ak seeni rakk ak seeni mag bu ñu àndee lu ñu bëgg a taxawal mas na ko taxawal kon cant gi ci njëkk bu yaay yi nga xam ne si ñooy waajur yaay waajur yi jàllee ñoo ngi leen sant ci turu seen kilifa ndax délégation ba am solo lañu def te li ëpp ci li nga xam si ne mooy liggéey bi ñoom ñoo ko def cotisation wax na ñoom kat dañoo fas yéene at mu jot ñu taxawee li nga xam si ne mooy daara ji yëkkat li nga xam si ne mooy seen alal def ko ci li nga xam si ne mooy barab bi ba tax cotisation ba am solo lañu taxawee kenn ku nekk joxe sa addiye ñoom seen jëm bopp ñu dajale ko démb barki démb ci talaata ji lañ ñëw jébbale ko ngi ñu defal ko ci li nga xam si ne mooy bis bi dong yi nga xamne itam ñu nek ci biir daara ci itam ñoom itam dajale nyar seen juroom ak seen fuk ak seen ñaar fuk ñoom itam dajale ko jënd ci seen café ak seen sucre ak seen koppe acité ñëw itam ñoom itam jëbël ko bala ko ay satla yu bare bare yo xamne ci njiital sëñ muttin ñi nga xamne itam ñoy jang ci biir daara ji itam ba genn dafa ne délégation bu am solo bo xamne mi ngi nekkon ci njiital sëñ bàcc ñang ak mun ak jili ak seen rak yi nga xam ñoom lañu andal ci jigéen ñi buñ ci tuddee soxna mam fati Jaw ak ñi nga xam si ñoo and ci seen gëna ak sox ñoom soxna bintak ñoom soxna Jaar Seek ñoom soxna Fassey ñoo balé mboolem ñi nga xam si ñoo nekk ci bi daara ji bu dé jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkon ci bi daara ji itam di jang buñ ci tuddee soxna Kumba gey ak ñi top seen ginnaaw ñoom itam def nañ ci délégation bu am solo balé ko itam seen cotisation ak seen taxaway ci li nga xam si ne liggéey bi gis ngeen leen itam dañoo def li ñu war def ba noppi wala bu dikk seen cotisation and ko seen wajur yëkk seen alal def seen ay cadeau jox ko ñi nga xam ci ñom lañ ko wara jox bokk na ci li nga xam ci na ci li sédal sama xol wax dëgg yàlla itam bokk na ci eh, dawal sama yaram bu loolu wéyee itam ginaaw bi nga xam ne dong ngay dajale nañ li nga xam ci moy alal ba def ko nonu ba nopi ñi ngi jital ci cant gi ñi nga xam ne ñoo doon taxawal bass bi ni ndax wax deug yalla wote ñu wuss la yom la waye nañ ñi nga xam ñoo la doon liggéeyal kat wax ba taxawal li ni kon ñooñu aaji nañ sant leen gëreem leen loolu nak par groupe lañ koy def bu ñu santé ci mbooleem ñi nga xam ci ni ñoy fédération tuba Porokhane Xidmatul qadim ci njiite soxna mi sill santé ci sëñ amana ñang mi nga xam ci ni mo jëte liggéey babu nonu kon yo santé ci maam Khady ñay mi nga xam nyep, jëte jigéen yi mu yóbbaale ñëpp bu ñu santé association Xidmatul qadim ci njiite abla Sall mu yóbbaale ñëpp bu ñu santé association Jënatul Mahwa ci njiite sëñ dam sar mu ñëpp bu ñu santé association tuba ak Madiana ci fallu sek mu ñëpp mboolem dayre yi nga xam si ne ñoo fi teew itam sant nañ leen ñoom ñëpp kenn ku nekk nañ ko sàkkoo woon ñëw nga fi dañu bañ a lim di gën a guddal moo waral mooy waaye képp koo xam ne évité woon nañ la rek gis nañ la ñëw nga di sant itam ñi nga xam ne bi bis bi ñëwee itam ñëw nañ jaayante ci bis bi joxe seen alal wabadikoon def ci lan ca man loolu nag mooy ñi nga xam ne ñoom ngeen gisoon teraanga yu am solo yi nga xam ne moom lañ doon séddale ci bis bi moy lu melni xeetu si yi ngeen gisoon wala xeetu bisab yi nga xamni ne gisoon ngeen ko wala xeetu buy yi nga xamni ne gisoon ngeen ko wala xeetu sir daqaar yi nga xamni ne gisoon ngeen ko lola la ci apon solo soxna mi silu mo si sooy mi defar na ci juróom ben fukki bitel yo xam ne jëbal na ko ci bis bi ak ñi nga xam ñom si la ko àndal ci njiital soxna mi silu ak soxna nogay ba ak soxna bintu bey ndax lolu ñom la ko sant di sante itam soxna awa ñang itam def na ci itam mom itam lu tolloog fanweeri biteel yoo xam ne si joxe nako ak soxna ndey géey di di waajur ci sëñ Cheikh Gueye moom itam loolu jébbale si na ko di sant itam sëñ Xonn Ñang mi nga xam ne moom itam at mu jot dana joxe minimum téeméeri muusi galaas yoo xam ne si ne transport ba yëpp mooy ki nga xam ne si ne moo koy joxe di sant itam soxna Fatou Diop Baye Fall nga xam ne am ñëw na di sant itam soxna nday Touré nga xam ne si ne lam jaayante woon itam ñëw na si ah, soxna Aliou Ali Alima Diop moom itam jaayanteem ñëw na ak ñi nga xam ne si ne ñoo yëkkati woon seen kilo café ay ñi nga xam ñoo doon joxe seen kilo sucre buñ ca topé diko lim jum man nañu am kon ñi ngi sant ñepp ko xam si ne feñ nga ci bis bi ci sa doole ak li nga xam si ne moy sa alal ak ñi nga xam dag na seen yitté ci njiita señ pap jaw mi nga xam ne bagage ya ba ñe ma nga ca gaar ba daa booba ba légui da bay ay am xeyam muy dimanche ba légui dag na ay and ko ak señ Mut jaw ak señ Mun jaay job ak mbolam ñi nga xam si ñoo dëkk ci koñ bi yépp ak ñoo señ Abo Njaay ak señ Mara Fall ñi nga xam si ni nag ak señ Añ Loo ñi nga xam si ñoo doon leeral li ni ñëpp kon sant nañ leen gërëm leen di sant itam mbokki sëñ daara yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi te buñ ci tuddee sëñ Abo Guèye mu yóbbaale ñëpp buñ tuddee sëñ Soxé bu ñaan mi nga xam suñu wajur lañ ko tuddee mu yóbbaale ñu mboolem fédération bi nga xam si ni ne ma moo féete jóg gox bii nii te ngeen gis leen nii mu tuddee sëñ Ousmane Diop mi nga xam suñu wëllëree dëkk ca Touba Aliya mu yóbbaale mboolem sañ daar yëpp kon la ca des ci cant mooy waxukaay gi nga xam ne moom lañ doon waxee ci suba ba léegi ñu ngi sant baax sëñ Njàmbe seen mii ak sëñ Abdou Ndoye ndax xam ngeen sëñ Dame itam at mu jot dana ñëw takkal ñu rajo yi bañ noppi waaye ren itam nag sëñ Abdou Ndoye daa ñëw dolli ko ci yar matériel bu bees boo xam ne bañ ko ko waxee moom itam daa ñëw jël matériel bi lëkkale ko matériel sëñ Dame ànd ak moom liggéey boobu noonu kon na ngeen xam ne lanu gënoon a manqué ci koñ bi sunu borom dogal nañu am ko muy matériel yoo xam ne si mi ngi ci gox bi sëñ Dame mi ngi doxal sëñ Abdou Ndoye itam matériel bu bees boo xam ne si ni nañ ko jàppale bu baax waaw ñooñu dinaa ñëw ci ñoom kon matériel bu am solo mi ngi fi boo xam si ne ci wàllu waxukaay am nañ ko lañ ca dolliwaat itam mooy mi nga xam si ne moom itam mi ngi yëngu lool ci wàllu réseau ñoom si nañ euh, euh, mi nga xam si ne moo jiite liggéey boobu noonu xam ngeen luñ fi yéen doon def ci suba ba léegi mu ngi jàll ci bitim réew fépp di jàll ci istiqaam yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi kon ku ñëwutoon soo toogee sa kër boo boo rek da jàpp li nga xam si ne mooy tegal di ko seetaan ci sa kër ni nga ko bëggee ñoo xam itam ñëw nañ jàpp si ci bis bi doon ñoo xam ne si itam dañoo ñëw ci gox bi ñoo xam itam sanc sanc bu bees di laasé itam xam ne si ni ne ñi ngi liggéey suñ tubaa ci lii te bëgg ci itam loo xam ne si ni bëgg ànd ci ak ñoom ci liggéey boobu noonu kon ku jaar ci man danañ wax fi mu nekk ku jaar sëñ Moussa Messere danañ wax fi nga xam fi la nekk ku jaar sëñ Xaddam Diop itam danañ wax fi la nekk kon ñu ngi fii ci li nga xam si ni ne mooy 30 bi nga xam ne moo nekk fii ci diggante moo xaajale kër sëñ Saliou ak kër sëñ soy bu ci diggante boobu ci la nekk ñu ko wax diggante bi du faal ak 30 bi ko xam que sëñ Moussa sëñ Moussa Masara nekk rek moo fa dañ la dañ wax fi nga xamante ne fi la barab bi nekk ak ni nga xamante ne noonu lañ koy doxee wax dëgg yàlla labir nañ ci lool di cant ñu ko wax sëñ Xaddam Diop at mu jot mboolem carte invitation yi nga xam moom lañ ciy def ak li ñuy def ci ndaje mi jaayante na ko ngir jëmmi yàlla jaayante ko ngir jëmmi sëñ Tuubaa lañ ci benn dërëm këy sax duñu ko laaj ñoo ngi bere cant itam bu baax sëñ naa Jaw yàlla dogal na wax dëgg fa yàlla bokk na ci gone yi bokk yi tam ci li nga xam ne si nii mooy liggéey bi lañ cay laaj dana ko joxe moom itam wax dëgg fa yàlla joxe na ci itam mboolem li nga xam ne si nii mën na ko ci ci alal ak it wax dëgg yàlla nga xam ne si nii ne luy neexal bis bi rek def na ko ci ak suñ xaadim mag ñi nga xam ne si ñoo nekk ci Gabon yëpp ak suñu àllay ji béy di bere cant itam sañ sëñ Fallou Niang moom soxna Maram Gueye ak sëñ Cheikh Touré bi yàlla dogalee mu ñëw Sénégal ñëw na ba ci barab bi mu nemmeeku ko wax dëgg yàlla itam tax def ci taxawaay bu rafet ak bokk ya xam ñoom la nekkal ca Italie yëpp ak waa Sardinia bi mu ñëwee daa wax ne nañ ko defal ay kàttu barkeelu yoo xam si ci turu boppam lay def ma ne ko ah daara ji daa baaxawut def ay kàttu barkeelu mu ne damaa bëgg nga defal ma kàttu barkeelu ma yóbbu ko Italie bu ko defee su ma demee wecceeku ko ndax suñ mbokki taalibe ya fa nekk ay jàkkaak la ñuy jëlee ci seen seeni ñëw diñu ko wecce ko ñu di ko joxe te daara ji mooy sunu daara ndax suñu rakk ñoo fi nekk ak suñuy mag jàng fi ba génn fi ko defal ma 304 barkeelu loolu itam yaakaar naa àggu ko sàrdi ñaa waaye Treviso gam nekk lam ca jot a barkeeloo ko su néew ca ñaa xam si bokk talibé yi jaayante nañ ko fa dugalal na ma ko ci li nga xam mooy sama tur jëli naa ko barki démb defal nañ ko ci li nga xam ne mooy bis bi kon képp koo xam ne yàlla dogal na nga joxe ci sa alal na nga xam seen agsi na ci suñu loxo teg nañ ko ci ñi nga xam ñoo organisé woon itam li xam ne mooy ñoo organisateur yëpp ci ñi nga xam si ne ñoom moom bis bi ay ñi nga xam ne wuy si woon nañ ngir yàlla ñëpp ñoo ngi leen sant ci turu suñu kilifa suñu sony boo ñaan di sant baax suñu waajur wu jigéen bi nga xam moom la suñu borom booleel ñu soxna astu wañaan ak mbooleem ñi nga xam si ne ñoom la bokkal kër gi yëpp dafa lëggee yàlla yàlla leen suñu borom guddal seenu fan te ko bàkki sa ko xadim ñu ngi jégalu ñëpp di sahade yi nga xam mo war nañ ko war nañ ko jox gone yi ak kade yi nga xam mom la andal buñ ko joxaatee suñu Abdou Lahat ak seigne Ousmane ak ñoom seigne Daam Jaan rek bu ko defé ñu joxal ñuko ko di sant seigne Bada sar mi nga xam ne suñu mbokum talibé la dégg bis bi nga xat seigne Ousmane Diop di suñu xarit di suñu soppé moom itam wax dëgg yàlla bàyyi ba gédé bo ba léegi mu ñëw ànd ak ñoom bis bi ñu ko koy sant baax di ko gërëm di ñaanal ñëpp yalla suñu borom guddal seenu fan daf ci dara ci suñu poste guddal seenu fan tawiral ñu ñu ngi jéggul ñëpp balax àq di jéggul ci baat bi ni ñu koy déggé xam ngeen ne jamono ji ñu tollu euh, ñëpp xam nañ li nga xam ne moo ñu tënk moo waral itam wax dëgg yàlla bis bi ñu bàyyee ko gone yi itam wax dëgg yàlla ñu taxawal nañ ko war a taxawee suñu xol sedd na bu baax lépp rafet na lañ ca bëggoon lépp amee nañ ko noonu kon ñu ngi jégul ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di beral can soxna maam Mbare mbak ibnu Sëriñ Son yobu sëñ Cerno boobu ñu ne daa am bis le 18 kon ñu jëkkati kàddu gi delloo ko micro central rek bu ko defee ñu àggal des ci liggéey bi ko sëñ daam bismillah في كل مود وفي الأوتان أعوذ بالله من الشيطان في كل مود وفي الأوتان خراد القرآن أمن من لهين ومن شقاوة ومن مكر المهين ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى زمانا ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى زمانا إن تلاوة الكتاب ملكه وهو لمن يبغي النجاة فلك إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبغي النجاة فلك بركة القرآن فقد زنا خارئ يفوز حيث هنّا بركة الكتاب tahmil الخارعة مما من البلاء تكون تارعة barkeb sëñ Tuubaa yàlla na ñu yàlla saxal ci alxuraan yàlla na ñu saxal ci alxuraan yàlla na ñu saxal ci kon mom ku saxlo ko mom kon da wara a ñun feeñ suñu njabot ñoy ñaanal Modou Wañaan ak jangale kat daara yàlla na suñu borom guddal sen fan gën leen katanal kon nañ góorgóorlu ci njabot gi nañ góorgóorlu ci njabot gi sëñ be mom alcorane moy lépp moy l'islam mom mom lépp assalaamu alaykum billahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس